du Khabar, souhaiter le nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année après quelques mois de pause nga xam pandémie bi pandémie bi reprendre li nga gouvernement face à la presse pour waxtaan ak nous avons ak que tontu

waxtaan ak Yen ci question yi nga xamante ni di nga leen posé xam ngeen ni mbay mi lu am solo la ci suñu réew ndax tey jii bu fekkente ni am nañu taux de croissance boo xam 1,5 pour cent la nekkuñu en récession ndax mbas mi loolu mbay mi moo tax ñu mën am dañoo am ay résultats très performants ci vision bu président Macky Sall am jox jumtukaay yu doy mbay mi

et eh, tout récemment sur le plan national muy le ceebu jën gis ngeen ni ko def ko patrimoine euh, mondial immatériel de l'UNESCO port yi tamit ak koom-koomu géej solo te passé son excellence monsieur Macky Sall président de la république Demne na ci Ndaayaan lancé fa travaux yu am solo mu donne am importance ak port minéralier vraquier Bargny Sendou ab plus lu jëm ci xeetu comme koomu géej loolu nag suñu natango Alioune di ministre des pêches de l'économie maritime da nekk ci seen disposition moom it pour question yi ngeen war a poser mu indi ci ay réponses donc ñu gërëm leen sant leen wax leen ni rek redémarrer nañu gouvernement face à la presse ñaari ay bés yu ne dinañu jakarlo ak yéen en fonction de l'actualité ak question yi nga xam bëgg nañ ko porter à l'attention suñu population yi ak question yo xam aussi centre d'intérêt la ci yooyu légui dañuy tambali donc euh, liguey bi et j'invite les différents journalistes à venir devant le pupitre pour poser les. Euh, bonjour à tous. D'abord une question, enfin pratiquement euh, deux de mes questions ont été prises en compte par euh, certains de mes euh, confrères, mais quand même je vais les poser. A euh, à vous, Monsieur le ministre de l'Agriculture, euh, on a vu, euh, vous avez parlé de la levée des taxes sur l'importation de l'arachide, mais est-ce que cette option sera bénéfique pour les paysans Est-ce qu'elle aura un impact positif sur les petits producteurs Et à vous, ministre de la Pêche, euh, euh, Aaron aussi a pris en compte cette question, c'est-à-dire euh, le problème qui a, ce qui s'est passé à Caillard. que pensez-vous de l'attaque contre le service départemental des pêches de Caillard et que comptez-vous faire par rapport à ces situations Et à vous, monsieur le ministre des collectivités territoriales, permettez-moi de vous poser une question ce n'est pas encore ce, n'est pas l'ordre du jour, je le sais. Mais est-ce que euh, par rapport au problème euh, des cartes nationales d'identité à Kermassar, où beaucoup de citoyens risquent de ne pas voter à cause euh, des changements intervenus avec le découpage de l'érection de Kermassar en département, qu'est-ce que l'État du Sénégal compte faire je vous remercie. Du port de Monsieur le ministre, vous avez procédé à la pose de la première pierre, mais vous en êtes où avec euh, l'étude d'impact environnemental et social qui doit évoluer les euh, incidences euh, du projet sur l'environnement et les populations Parce que jusqu'à présent, l'étude n'est pas disponible et il y a des experts qui prédisent une catastrophe écologique. Chère assistance, alors moi j'avais trois préoccupations aux différents ministres. Euh, la première est liée à la, euh, est posée à la, au ministre de, l'Agriculture. C'est notamment, quelqu'un, un confrère a parlé de la taxe qui est, supprimée, mais moi je, reviens sur euh, le chiffre exact de la récolte de cette année. Monsieur le ministre, c'est quoi exactement la quantité récoltée euh, en, sur l'arachide pour cette année la deuxième question, c'est justement, on a entendu le cri de cœur, les inquiétudes des producteurs des Il semblerait qu'une découverte a été faite euh, dans la zone des en, zircon. Ils craignent pour leur activité qui est aujourd'hui menacée par cette découverte parce que euh, leur culture de, de légumes et autres est, fortement menacée par cette découverte. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en, guise de rassurance euh, La troisième question est posée au ministre de la Pêche. On a entendu euh, les acteurs de la pêche et de l'aquaculture euh, euh menacés d'aller en grève parce qu'un des leurs a été agressé. quelle assurance également vous pouvez apporter à ces acteurs de la pêche Merci beaucoup. Vas-y journaliste à euh, ZIC FM euh, Saint-TV. Bonjour, messieurs les ministres. Bonjour, monsieur le ministre. Euh, monsieur le ministre des Pêches, j'avais deux questions, mais l'une a été déjà posée par un confrère. La deuxième est la suivante. Le président de la République veut qu'on paye, que les impactés du Ndayan soient payés avant la fin du mois de février. Monsieur le ministre, à combien chiffre-t-on cette manne financière Merci moom organisé monsieur Omar Gueye di di sama ministre de la pêche monsieur Ali di gërëm journaliste yi di di di di téléspectateurs yi ak auditeurs yi campagne de commercialisation maanaam traite gerte bi traite gerte bi tàmbali na mot ni mu tàmbalee noonu la a ci at yi <coughs> fixé nañu lu ñu tuddee prix plancher maanaam juróom fukki dërëm ci foofu la nekkoon daaw mais xam nga ni yokkute bu mag la boo ko comparé ak année yi passé <coughs> Macky Sall maanaam ci bëgg bëgg monde rural équité ak monde rural Sénégal mu am koom-koom moo tax mu yóbbu ko ci prix boobu bu mu ko yóbbee nag daaw ak daaw jeeg am nañu ci résultat yu am solo béykat yi daaw li ñu am ci xaalis upp na ñaari qui milliards ci pas ren bo xoolee nawet bi nawet bi boko ko ak nawetu daaw nawet gens qui upp ndox fouf wante boko euh, ak nawet yi passé bu normal la na am gens ay gox yo ndox mi xawna na mais amna ay gox yu bari bo ndox mi ni normal na ci normal ci Sénégal pas exceptionnel mais nawet bu normal jumtuwaay yi ñu waroon yóbbu ci producteurs yi maanaam ci wàllu engrais wàllu jiw wàllu matériel agricole def nañ ko ni ñu ko doon defee te baykat yi jot nañ ci loolu li mu indi mooy production bi ñu am ren naam boo ko méngalee ak bu daaw wàññeeku na tuuti wante boo ko méngalee ak année yi passé yokkute bu mag a mag la ci par rapport a suñu production agricole loolu moo tax gerte moom li ñu xaar manam mu ngi million ak juróom-benn téeméeri tonne euh, junni tonne la ñuy xaar ci gerte loolu nag moo tax campagne de commercialisation xam ngeen ni conseil des ministres déjà am na ñaari weer ci ginnaaw président daf ñu nous ñu xool nan la ñuy d'abord préparer campagne bi fee ba normalement mais ñu fexe aussi ba. li ñu am ñaari at yi passé maan maanaam béykat bi moom kontaan na wante huilier bi maanaam ñiy defar diwlin ñu mel ni Sonacos ñoom du ñu am gerte ñu jéem a régler loolu loolu nag ren gis nañ ni xëy na sa contexte mondial bi moo ko régle contexte mondial bi mooy lan maanaam ñiy jël gerte di ko jéggaani ñoom tamit bénéfice la ñuy wut <coughs> te gis nañ ne ren boo xoolee naam gerte déjà am na Chine tuuti des na fa tuuti donc ñiy jënd pour def diwlin wuñu deuxième chose bo jëlee fi sa tonne gerte pour yóbbu ko Chine li nga don fay daw di nga genné trois fois lolu pour nga mën ko yóbbu donc lolu motax ñom tamit ren ñu xaw am jafé jafé xam nga ni nak daw dañu defoon ne taxe taxe bobu c'était pour aussi équilibrer parce que nit ñi dañu waxoon ne euh, am na ñoo dañuy jël ñew jënd suñu gerte dara du leen ci fekk ñu def taxe taxe bobu manam juroom benn dërëm kilo boy yóbbu mu indil koom-koomu Sénégal 9 milliards de francs CFA ren bi situation bi demee nii te gis nañ ni Sonacos li ñu amoon daaw gerte ci campagne bi yëpp ci weer rek am nañ ko ren gëm ni war nañu mën def campagne bu normal même bu dee exportateurs yi ñu ngi fi jiw aussi liñ doon sentu dem nañ ba presque 27000 tonnes gëm nañ ni bu ñu continuer nii balaa campagne bi di jeex liñu bëgg euh, denc ci jiw dinañ ko denc loolu moo président de la république

ñi ñi koy jënd wuñu euh, lool moy indi affaire mbappat yo xam baxul ci béykat yi tegg nañ ko te xam ngeen ne daaw exportation mu ngi commencé le 15 janvier même si on savait que exportateurs yi commencé woon nañ jënd gerte ren nak dañu waxon lu leer duñu ñu commencé jëndee tant xamuñu date bu ñuy exporter date bi xam nañ ko parce que joxe naa ndigal ñu commencé joxe certificat phytosanitaire bu leen di permettre maanaam visa yi yooyu mooy visa yi permettre gerte Sénégal ñu génn Sénégal joxe naa ndigal ñu commencé di ko joxe DPV commencé na di di di def liggéey boobu. ensuite dañu ñaanoon ñu wàññi taxe bi président de la république teggi na ko donc gëm nañ ni ñoom tamit léegi toutes les conditions sont réunies pour ñu mën a jënd gerte euh, euh, maanaam ñu ñu ñu ñu ñu béykat yi euh, seen traite bi gën a gaaw. parce que daaw ak daaw jeex teret mois de février fin février rek jeex na ren bëgg nañu aussi côté fin février mu jeex ñëpp kontaan gis dëgg naa ku ma wax fii neen gerte dafa bari coow dañ ko war a bàyyi mais xëy bu bari lu tax mu bari coow parce que dafa am njëriñ rek bu amuloon njëriñ du am coow comme que kenn gaañu ci kenn réew ñu ci kenn na coow bi continuer rek man de coow bi dérangé wu ma tant que béykat bi mu ngi gañ xaalis tant que gerte mu ngi am tant que ñu ngi exporté di am xaalis donc gëm nañ ni euh, sénégalais defe naa kenn du ko ak coow mais l'essentiel ñu coow rek ñu bañ a xeex te xeexuñu ci affaire gerte bi. Euh, am na ku wax aussi ne zircon bi euh, dégg na coow ci au niveau de de de Niayes waaw loolu dëgg la aussi parce que xam nga ni Sénégal maanaam man bi ma école primaire defe naa dañuy wax ne Sénégal 5 millions lañu léegi defe naa ñëw nañu 17 te gëm nañu ne fii ba 2050 <laughs> war nañu upp loolu c'est normal gars yi dañuy tabax <laughs> amna ay yenen yu ñuy gis euh, pétrole bi fii leneen leneen ah, na pétrole bi ci géej bi lu nekk mais da fay indi pression sur le euh, sur le le foncier en particulier le foncier agricole mais sama natango bi nga xam mom moy yor collectivité territoriale mom war ci mëna a wax bu baax parce que amna projet bu ñu ne PNDAT manam mom moy saytu lepp ni ñuy defee fi planification ci dëkk bi mom xëy na war na ci mën a dara mais gëm nañ ni Sénégal xam nañ ne mbéy bokk na ci lii suñu kom kom amna na ku ko laajoon sax ñu ne nan lañuy ñuy ni mom moñu téré récession mais c'est que daw buñu défé defee suñu calcul croissance au mois de septembre avant ñuy récolter c'était négatif mais bu récolte bi yëpp ñëwé buñ ko calculer waté mu nekk plus de 1 donc lolu leer na ni mbay Sénégal daw moñu téré am récession té dëkk yu bari amon nañu récession ballu engrais bi aussi wax naa ko engrais aussi li ko jafeloo mooy maanaam prix engrais ci àdduna bi dafa yokk parce que ñi bu ñi doon jënd engrais lekk yu bëri dañoo doubler li ñu doon jënd te production bi xam nga mbas mi bu ñëwee bu ñu waxee ne travail à distance loolu xëy na nga yor sa ordinateur mais bu dee da ngay defar engrais moom il faut nga dem fële ca usine ba loolu moo tax confinement yi indi production bi wàññeeku loolu li mu indi mooy dafa gën a cher dafa gën a cher ci àdduna bi yëpp maanaam seeraay boobu moo tax. Si nous ak ñi nga ne man ni prix bi euh, bi na trois subvention bi 50%, duñ ko parce que préparé wuñu ko ma dem ci président ñaan ko président subvention bi en charge loolu dikkal na trésor Sénégal 8 milliards pour ñu mëna dimbali ñi euh, euh, surtout rawatina ñi nek ci ceeb bi fale ci vallée fleuve Sénégal pour ñu mëna a jënd seen saako engrais 10 euh, 000 francs maximum comme niko euh, nuñ ko défé ci ci hivernage bi. lool motax aussi euh, ci ci ci ci vraiment en terme de matériel agricole me paraît ci euh président de la république ci discours am bi néna dañuy wéyal modernisation suñu agriculture. amna programme bo xamné ne na ma ñu ngi ci liggéey té légui sax ñu paré tout ce qui est administration ci ci projet bobu pour ñu wara mëna a indi au Sénégal. 700 tracteurs yu avec 50 moissonneuses batteuses ak yenen ak pour permettre même Sénégal président c'est-à-dire une agriculture moderne Madame diversifiée euh té gis Merci beaucoup, chers collègues, pour vos réponses euh, claires, pertinentes. À présent, je donne la parole à notre collègue ministre des Pêches et de l'économie maritime. Tu man nag dama koy def ci lébu comme ça dama def ko ci lébu parce que la ma ne ko puisque pël bi wax na wolof kay waaw ma ma ma maa ngi leen di nuyu bu baax waxuma ko sax ci français waaye di leen souhaiter mes meilleurs vœux également parce que euh, occasion yi bëriwul di ko souhaiter njiitu réew mi ak son gouvernement waaye di ko souhaiter toute la population sénégalaise wax ne li ma fi dégg ci ay ay laaj euh, yi ci ëpp ci port de Ndayane c'est normal parce que moo def actualité bi waaye euh, euh, jafe-jafe yi ñu am fële Kayar ci suñuy mbokk mool mool marier et cetera ak suñu chef de service bi fa nekk waaye itam lépp li nga xam ne laaj laaj na toujours ci wàllu sax am yi daw en tout cas yi opéré ci biir Sénégal waaye itam ndax ñun danañ observer ay li tubaab di wax biologique maanaam géej gi noppalu ci ay période yoo xam ne justement danañ mën a jur màgg tuuti atteindre yenn taille pour ñu mën a continuer liggéey bi euh, ak itam lan la euh, ndaayaan ëmb ci wàllu euh, dëkk ci muy laal est-ce que la mu laajoon ci étude maanaam ci jàngat pour xool loolu lan lay ami ci jeexital ci askan bi foofu waaye itam ci ci suuf yi fa nekk ndax loolu def nañ ko walla defuñu ko foog naa ni laaj ci lool la ci loolu la nekkoon may wax ni ci ndaayaan dañuy sant yàlla ni euh, ministre xam euh, Oumar Gueye foog naa ni euh, bi muy nekk ministre des pêches programme boobu déjà ñu ngi ko doon waxtaan parce que bu ma juumul bi ma yegsee weesoon na ñetti at nit ñi di waxtaan pour jéem a am li gën a baax pour Sénégal euh, kon ndaayaan bu ñu demee ba 3 janvier bi njiitu réew mi dem pour euh, ñu tàmbali liggéey bi euh, loolu dañ ci sant yàlla bu ñu xamee ni investissement boobu maanaam liggéey boobu amaana mooy yi bi gën a mag ci loo xam ne du état moo ko def waaye ay privé ñoo ko def fii ci Sénégal

Euh, am na document yoo xam ne ñu ngi ko doon maa ngi gis ñu ŋàññi ko tey waaye document yooyu bañ koy defar amaana ci ay weer ci gannaaw taux boobu ak taux bi léegi mën naa mën naa wute waaye coow li newul foofu coow li mooy lii euh, defaguñ ko dañ ko estimer et ndegam partenariat la ñu tëral foofu mooy wax ni guleet enfin guleet euh, fexe nañ daal ba Sénégal jóge ci 10 pour cent donc fukk téeméer goo jël fukk la ci amoon yéeg ba 40 pour cent maanaam téeméer boo jëkk boo jël euh, ñeent euh, ñeent fukk la ci am ci actionnariat maanaam ci moomeelu euh, société bi nar a gérer lépp luy plateforme là aussi ma wax ko convention bi ci plateforme conteneur yi la la nekk waaye suñu accord ak suñu partenaire bi nga xam ne tey boo xoolee ci àdduna bi mooy en tout cas ci dayoo ci ci la ñuy def loolu euh, boo boo leen di boo leen di liim mooy ñetteel bi ci wàllu doole wàllu xam-xam wàllu taxawaay ci ci àdduna bi ci lépp loo xam ne laal na euh, infrastructure portuaire ak logistique bi mu àndal ñu fas yéene fa def nag donc port boo xam ne euh, danañu may ñun Sénégal ñu jël suñu suñu suñu suñu en tout cas ñu ñu jël suñu Euh, suñu place bi nga xam ne moom la ñu yàlla jagleel parce que boo xoolee fi ñu ne ci àdduna position géographique lépp luy jógee sud di jëm ci occident fii ngay mujj laal booy wàcc itam fii ngay njëkk laal kon loolu day position géographique boo xam ne loolu rek war na may Sénégal bu bu defee li ko war mu nekk li ñuy wax benn hub portuaire boo xam ne amana moy gën mag ci sous région bi fi ouest africaine té lool nak moy ambition njiitu réew mi moo waral mu nangu def ay investissement yi ni yi ni day euh, xam ni 837 millions de dollars la ci investissement bi waaye lim ñuy jural légui moy euh dana may Sénégal mu mëna euh am en tout cas batu yi gën reuy ci aduna tax ku sànq bi mi sama natango di wax. Euh, dégg ngeen ko mu wax waxi fret fret kuuti fret nga xam ne loolu luy impact la ci économie bu baax a baax a baax te pour loolu coût euh, coût fret boobu wàcc maanaam ku passage ci suñu port mu wàcc euh, il est important nga am li ñuy wax ay économie de d'échelle maanaam ngay mën a indi bateau yi gën a rëy te pooru Ndayane dana mën a indi bateau yi gën a rëy ci ñi ñii nga xam ne tey xam nañ leen ñuy ñu nekk ci géeju àdduna yi Pour nous, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu phase initiale Nous avons fait un peu de Nous avons fait 3 000 emplois. Je vais vous donner une traduction. 3 000 <laughs> emplois. Et dans la phase de la plateforme portuaire, nous avons fait 25 000 emplois. Et dans la phase logistique, ñu ngi ciy xaar lu ñu ngi ciy lu weesu cent mille emplois kon port Ndayane day impacté jàpp naa ni moom rek dana mën a gàddu ji presque li ñu xaar ci wàllu en tout cas croissance ak émergence ci suñu économie parce que port Ndayane yemuñu foofu choix bi dafa am solo choix bi dafa jege lool AIBD donc dana am tout de suite li may wax connexion interconnexion parce que port bi day multimodal parce que njiitu réem dafa bëgg développer itam chemin de fer yi chemin de fer ñu ngi sant yàlla bu baax bi terre bi daw tey loolu day wone déjà ay ambition mais dafa bëgg développer chemin de fer lu mu néew néew néew néew fii ba Tamba boo xam ne dañ fa def benn base logistique waaye loolu dañ ko bëgg yóbbu itam ba Bamako waaye loolu day dépendre ci ci waa waaye ñun lu mu néew néew bëgg nañ ko yóbbu ba euh, Tambacounda nga xam ne liy wàcc port Ndayane tout de suite mën na jël mode ferroviaire bi pour dem. bu concerné zone boobu dem ba ci suñu base logistique logistique bi nekk euh, Tamba dana ar suñuy suñuy tali parce que xam ngeen li gëna a yàq suñuy tali lool bokku na ci té bo né da da ngay accueillir bateau yi gëna reuy lool ça veut dire que di nga accueillir conteneur yi gëna reuy donc forcément ci projection di nga xamné ay 40 pieds nga ngay gëna jot ay 20 pieds donc di nga agir ci poids bi di nga agir ci tali bi donc loolu dafa am solo donc connexion bob ak l'aérien Ndayane déjà dana bok ci li booster politique aéroportuaire bi nga xamné tay président la rek bi nga koy def dana bok ci li booster justement tout ce qui touche au niveau des chemins de fer kon gis ngeen ni loolu am solo la waaye euh, impact yi ngeen xalaat ci dëkkuwaay yi foofu xayma nañ ko étude étude d'impact environnemental bi xayma nañ ko euh, te euh, lépp li nga xam ne wareef la ci nguur gi malgré que li ci ëpp ay suufu état la mais li ëpp en tout cas lépp li nga xam ne wareef nguur gi la président joxe na ndigal pour que euh, population yi bañ ci am benn gaañ-gaañ donc ñooñu dafa jox app fin février pour que képp koo xam ne impacté nga te nguur gi war la amel dara ñu fay la ko loolu dafa am solo danañ fa tabax benn centre de formation au métier euh, portuaire parce que liñ moi, bëgg mooy bu lolou paré bu doom ay doon ay doomi Sénégal yu fay liggéey parce que société bi tay dañ koy suñu société la parce que fo nek à 40 moy ni dépassé nga wax ci société euh, minorité de blocage xamné c'est 33 quelque chose donc là, déjà l'homme am solo la euh, kon foog naa ni ndaayaan boo accolé ak li ñuy def actuellement ci port minéralier et vraquier bu Bargny Sendou euh, di nga gis ni Sénégal la ngi def jéego yu pour donner ëpp portuaire bi mu soxla bi mu soxla doon te loolu boobaa danañ porter danañ nekk moteur croissance Sénégal waaye nous avons a nekk moteur croissance même sous région bi parce que li ñu bëgg port de Ndayane day am zone industrielle portuaire boo xam ne da ciy accolé wu ak interconnexion yi ma leen wax donc loolu dafa am dafa am solo donc si Bargny liggéey bi inshallah de lépp dana normalement fin septembre foofu it investissement privé boo xam ne 288 millions de dollars moom la fay def ay at depuis 2017 projet boobu mu ngi daw kon euh, jàpp leen ni euh, lépp lu hydrocarbure euh, danañ ko livrer 30 avril ci seen planning bi ñu yor lépp nga xam ne quai minéralier la ak céréalier danañ ko livrer le 30 septembre donc euh, fi may wax ak ni 80 ci liggéey boobu yemb na donc la ca des mooy 20 yi ci yi nga xam ne moo ci des kon loolu boo ko xoolee ak bu subaa nan la ñuy redéfinir port de Dakar def ko port de plaisance def ko base logistique euh, pétrolière et cetera loolu itam dañ koy ñu ngi koy xayma pour xool lan ngëneel bi nga xam ne mën nañ ko ci am pour am justement benn politique portuaire nationale bo xamné day cohérente permettre ñu spécialiser suñu port yi nga xamné moy les ports secondaires port bu Kaolack port bu Ziguinchor port bu Saint-Louis loolu lepp bu yembé euh naa ni économie maritime euh ku ñuy lim ci économie Sénégal mom ngay jitt ci ci lima ma yaakaar foog naa daal loolu moo fi newoon wax ni wax naa sànq itam euh, geej gi noppale ko jox naa leen

pour jeexal foog naa ni mooy li xew Kayar euh, Kayar suñu mbokk yoo xam ne jàpp nañ ni dañoo mer ci lii chef de service bi di doxal ñoo xëy dem tojate service bi tojate ko complètement waa loolu doyul itam ñu dem euh, yàq euh, këru chef de service bi mooy wax la nag loolu rafetluwuñ ko parce que da dul yoon te mënuñu ko encourager donc il y a déjà euh, autorité administrative yi euh, parce que c'est seen liggéey la aussi assurons assurer sécurité chef de service bi fa et l'ensemble de ses agents chef de service il est en poste euh, du ci ay du quand nous faisons décider kan nous fi le a parce que bu ñu maam li ñu ñaawlu ci moom que dafa strict madame du maye dara ci liggéeyam li yoon wax lay def waaw loolu nag foog naa ni nag ci réew mi bu ñu bëggee mu jëm kanam loolu dañ ko soxla kon ku mel noonu dañ koy jàppale waaye duñ ko jéem a xoxatal wax ni nag réew mi aussi boo amee la naqari am nga ay eh, foo war a dem pour nga mën a saafara li la li la li metti waaye kenn amul sañ-sañ jóg ne da ngay fajal sa bopp ba nga naan yaa ngi dem tojate benn service départemental maanaam benn service de l'État doyul nga dem au niveau privé nga toj benn kër kon de ce point de vue damay enquête bi ñu ngi koy def euh, il faut que nit ñi delloo si la raison euh, que sama chef de service mu jàpp ni en tout cas on est solidaire ci li muy ci li ko dal parce que dañ koy ñaawlu euh, foog naa ni yónnee naa fa ba pare moom ci moom moom ci boppam jokkoo nañ téléphone kon loolu pour l' instant laa ci mën a wax ci incident yooyu euh, parce que li muy tere mooy tàllaar yooyu dafa am réglementation am na loo xam ne amoo sañ-sañ napp ko bu nee nag yow da nga ne yaay décidé lu neex ngay def da ngay da nga koy napp jafe-jafe day am euh, texte yi ñoo ne boo ko defee moom boo ñëwee laaj ko certificat phytosanitaire pour jaay sa jën do la ko defal parce que bu la ko bindaloon tey bu subaa ñun suñu yeneen service di enquête loolu ba ci moom ni gis ni moom moo ko def mais ci moom la ñuy dal parce que ñu jàpp ni deful liggéeyam tax yi itam ñooy wax yenn yi dañ koy saisir incinéré ko parce que bëgguñu business nekk ci mu ngi mel na tey rek Sinébar euh, boo ko jàppee xam nga ni dañ koy incinéré kon nag kii def loolu nga ne d'accord ci na fi jógee tey tey tey tey tey Sénégal ab réew boo xam ne dafa am quand organisation am ay institution kon nañu gën a joxante cër euh, bu ñu amee lu ñu naqari mën na ne waaye service yaa ngi fi en tout cas suñu buntu tëjuwul pour nga indi wax ñu say jafe-jafe ñu xool na lañ koy saafara waaye nii lañ ko war a doxalee foog naa ni mbokk yi def naa tur bi ci li ngeen ma laaj bu amee lu ma fàtte mën ngeen ma koo fàttali maa ngi leen di gërëm bu baax. ni ci li nga xamante ni laaj nañ ma ko directement mooy ndax ndaayaan euh, impact yi muy am ak recette yi muy collectivité territoriale yi dinañ ci bénéficier bien sûr dinañ ci bénéficier ndax fu port am fokk mu am lu muy jur ci fa port ba am port bi nag dafa fekk ni ñetti gox-goxaan ñoo ko séq muy ngi Ndayane commune muy Diass commune muy yenn commune te bu ngeen déglu bi président Macky Sall di teg xeer wu njëkk wi wala di di di di di commencer travaux yi lancé ko Euh, maire bu yeen muy professeur Gorgui Ciss wax na ni buñ sañoon ñoom dañuy nekk en intercommunalité maanaam ñetti communes yooyu ñu lëkkaloo loolu lu baax la gouvernement bi dina leen ci jàppale ba intercommunalité boobu taxaw pour que ñoom ñu mën a euh, la fay jógee mu mën a doon njariñ pour euh, environnement bi nga xamante ni moom moo seq pour bu bu bu Ndayane beneen bi mooy carte d'identité yi nga xamante ni wax nañ ko Kër Massar carte d'identité ministère de l'intérieur édité na ko daf koy mais il faut communication bi dial ndax dañu wara xamni comme création yu bess la muy département keur Massar comme ñaar commune keur Massar dañ ko xaaj ñaar muy keur Massar Nord ak keur Massar Sud quartier ñu yoron ñoom baxatul quartier ñu wara voter dañ koy dem jeli manam kep ku doon voter fofu nga nga yor sa carte bi nga doon voter doto ci mën voter ti da ngay dem jeli sa carte bess bo xamni xam édité nañ ko déjà bo demee ci commission yi nga man ko jël donc communication bobu ministère de l'intérieur bi nga koy def mais il appartient aussi aux acteurs politiques nga xam dañuy def dañuy compétir ci élection yooyu ñoom it ñu am sen propre euh, disons organisation bu ñuy dem ci sen ci nit ñi di wax ak ñom pour que ñu mëna a it dem sen jëli sen carte loolu buñ ñu ko defee parce que fii ak euh, élection yi di ñew ñi wara jël sen carte yépp inshallah dinañ ko jël bi ci des moy l'Union européenne a été, le plan national d'aménagement et développement des territoires loolu lu am solo la ndax benn développer bu amul une planification spatiale Mon président Macky Sall jël décision centre gouvernement mu liggéey ci loolu ñu liggéey a ba taxawal plan national d'aménagement et de développement du territoire Mon mu validé en conseil présidentiel jóge fa mu dem assemblée nationale ñu indi ben loi muy la loi d'orientation et d'aménagement du territoire lolou li muy wund mooy actuellement Sénégal lepp luñ ñu fa war a ci at yi di ñew planifier nañ ko xam nañ ko ci walu wu nek nak ci walu port ci walu aéroport ci walu chemin de fer ci walu route ci walu autoroute ci walu université ñu fa war tabax euleuk ci walu hôpitaux ñu wara tabax euleuk fan lañ koy tabax yoy yëpp mi ngi ci document bo xamni teunk nañ ko et c'est disponible même en ligne pour que nous nga xam ay investisseurs yu war nous ñëw xam bu ñu def tel investissement fan lañ ko war a def te sécuriser tamit le foncier au Sénégal ndax am na wax le visa de localisation bi nga xam ANAT agence nationale de l'aménagement du territoire moo koy joxe masalan boo amee projet bëgg koo def bu amul visa localisation boobu doo ko def parce que visa boobu dafay permettre projet bi nga am mu nekk en conflit ak un projet boo xam ni planifié nañ ko ci même site bi nga def loolu lu muy amal njariñ gouvernement bi mooy impense yi ñu daan fay te ku gis TER bi li ñu ci fay ci impense bare na lool day tax ba donc impense yooyu day wàññeeku bu baax parce que dès le départ duñ la bàyyi nga def foo xam ni nga fa def sa investissement te fekk gouvernement bi ci planification bi nga xam ni moo nekk ci PNADT prévoir na fa quelque chose donc lu euh, et je voudrais même que les nga xamni ce plan gën ko diffuser un peu partout pour que nous, ñi man donc li nga question ñu je pense que tant bi nga xamni lañu on avait dit qu'à midi ñu qui pare euh, je voudrais donc vous remercier, vraiment remercier la, presse pour votre présence massive à cette édition de Gouvernement face à la presse. Et comme je l'ai dit, nous comptons continuer tous les 15 jours pour venir sur des thèmes d'actualité. Je voudrais également euh, vraiment remercier mes collègues ici présents pour la clarté et la pertinence de leur euh, exposé, de leur réponse à vos questions sur des sujets aussi importants que l'agriculture, qui est un moteur de croissance, mais également la pêche et l'économie maritime, qui est également un moteur de croissance, et les projets structurants du président Macky Sall dans ce secteur, notamment le port de Dayad, qui va être un port extrêmement important, le plus grand port, comme l'a dit le ministre de la pêche et de l'économie maritime de l'Afrique de l'Ouest, avec ses tirants d'eau de 18 mètres, avec toutes les possibilités que cela offre, et qui nous prépare vers le futur de l'économie maritime avec les possibilités d'accueillir donc des, des, Panamax et même des postes Panamax, des, des, navires très, très, très importants en termes de capacité de transport de conteneurs. L'agriculture qui se porte très bien au Sénégal, malgré les difficultés, malgré la crise, le ministre est revenu là-dessus, professeur Moussa Baldé, sur les possibilités que nous avons, sur l'augmentation de la production euh, en moyenne dans les cinq dernières années, même s'il y a une légère baisse sur certaines spéculations, et les mesures ardues que le, président Macky Sall a eu à prendre, notamment par rapport à la taxe sur l'exportation de l'arachide, ce qui va également aider aussi bien les exportateurs, mais également les producteurs d'arachide en termes de possibilités de vente et d'exportation et d'augmentation de leurs revenus.